ndaysaan Moustapha Diop moo leen féete càmmoñ assurance bu mbuur moo leen féete ndijoor Moustapha Diop moo leen woon ginnaaw noonu assurance bu mbuur moom ngeen jàkkaar lool ñu ngi ci demi-finale yi wàllu ñu am fa caaka fay ak en 2000 ndaysaan arbitre bi sifflé na mbokk yi assurance moo leen won ginnaaw noonu moo leen kanam Pate Diop moo leen wan ginnaaw ndeysaan ñu ngi fii ci Adrien Senghor ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ak assurance Pate Diop sëñ Bas wàlluwee nga am fa en 2000 ak Caaka Fay ndeysaan Pate Diop a ngi sëgg rek. bañ a siggi mbokk yi wàllu gis ngeen en 2000 moo leen wan di joor caaka fay moo wan càmmoñ ngemboo ngemb lu ñuul li l'an 2000 ngemboo ngemb lu weex li ñaari xale yaa ngi ci ndaysaan daan rek dem final li nekkoon ci mbër yëpp wàññeeku nañ ndaal naa ni dong ñoo fi des ay ndaanaan sax daanu nañ cey làmb Pata Diop assurance Pata Diop a yóotu ngem assurance bañ assurance ngàdd na ko bi nee na ko bëreel Pata Diop nga réclame di réclamer naan mu may ngàdd arbitre bi ne ko bëreel assurance Pathé Diop daw na jël tànk ba assurance bañ na <laughs> ay lamb ndeysaan assurance ma Pathé Diop ndeysaan ñaari xale yaa nga ca combat ba wàllu wee gis ngeen caaka fay assurance daw na jël ko Pathé Diop takk na ko wala déet jàpp ba baax na wala déet fu mu mujj assurance Pathé Diop ndeysaan waaw Baye xam nga li ma jaaxal ci assurance mooy mbër mu am poids la ba pare di mboot mbërum mbërum mbootkat la daa ñeme wet gi daa ñeme wet gi noo toll noo njoolee da la jox te bi mu yor jafe na mbër yor di mën a mbot te assurance daa moom boppam dafa moom boppam moom assurance waaye nag du ci làmb champion la ci làmb assurance bu mbuur lu ne def na ko ci làmb ndeysaan maa ngay fàttali ku tàkk saan namba moo Garga Mbossé ndeysaan fële ci Thiès stade Lat Dior ndeysaan lamb ja sama papa Bécaye Mbaye bëre tëggoon l'an 2000 ca la bokkoon assurance jël na ko daan nañ assurance Pathé Diop daan na assurance daan na ko Pathé daan na assurance hey kuñ daan nga ñibbi daan ñibbi daanu ñibbi daan dem final l'an 2000 xel la bëgg a moom caaka du mbër bu ñuy taf tafe mooy li sëñ Bas doon wax sànq comme caaka fay mbër yu ndaw yi lay bëreel ëpp leen doole jox leen cër suy bëreeg l'an 2000 dana jox cër moo taxit cër ba l'an 2000 di laaj jox na ko ko ndaysaan ña ba tey Baye Djily l'an 2000 mbër la moo xam ne dafa osé te gis nga ko euh, li combat bi di daw yëpp day continuer def ay ay action yoo xam ne day déstabiliser adversaire am ba pare moom dafa moom boppam ay rotation yu ko neex lay def fu ko fekk fa koy defee mën nga koo këf te doo ko sori parce que saa ko jëlee mu génnaat attention. l'an 2000 li nga dugg doo ci génn maa la ko wax doo ci génn l'an 2000 caaga fay waaw waaw doo ci génn. doo ci génn Thiaka Faye daan na l'an 2000 Thiaka dem na final ndeysaan delloo ziar bu dem nga final loo waaw sant yàlla rek di ñaan yàlla mooy mama daan final bi waaw nga daan l'an 2000 waaw lambu la rek waaw lum la wax non bi ngeen de li nga ko daanee ma koy féliciter rek parce que moom suma mbor la suma garaan la man maa ko bugal suma bopp waaw jaajëf bonne chance merci beaucoup waaw fane la nga dem final loo yëg non kontaan rek comme ni ñu daan yëg bi ñu daan final rek loolu la ñuy yëg quoi nga daan assurance bu mbuur non li lu rëy si ñun parce que daan nañ champion bu ne waaw li nekk lu rëy si ñun la yàlla xam na bi mooy sa ñaata sorte ci bëre ren bi mooy sama cinquième cinquième waaw maa jël maa jël kaat bi moo des quoi jaajëf di naan yàlla may ñu ndam quoi. bonne chance ok Mouhamadou Moustapha Sall jëkkati sa loxo kooku mooy Mouhamadou Moustapha Sall waaw ma ne ummi Batlinski taxit ba caaka fay amoon yoo xam ne biram kunkunga o kamɓe fof ko annda abdisare voilà donc yimɓe tan fof okoye andoon ne ka fokuna in to a waño jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi noonu ci final bi dox ci caaka fay ak Mamadou Moustapha Sall cey làmb arbitre bi sifflé na mbokk yi caaka fay ngeen jàkkaarloo fer ndeysaan ñu ngi loolu ci final bi sëñ Basiru xol bi sedd na ndeysaan Mohamed Sall jël na ko caaka war na ko ndomba mbaa di nga ci génn caaka war na ko ndomba est-ce que caaka war na ko ndomba doo ci génn caaka war na la ndomba doo ci génn caaka war na ko ndomba ma ngay way ndeysaan caaka fay ko war ndomba ba noppi di ma ngay way gàll na bopp ba ko caaka fay jël na ba. Ndeysaan Thiaka jël na final ba Thiaka jël na final bi Thiaka Faye félicitation. waa kontaan rek delloo sant yàlla gërëm amateur yëpp waa gërëm leen yéen tamit yàlla gën a doole seen liggéey bi nga jëlee final bi ñëpp biñ la gisee njortu woon nañ ñëpp Thiaka Faye mun na. sant yàlla rek encore. parce que tamit ñun ñëpp dañoo ut si woon kon bu ma ute naa national ñàkk waa lambu la rek mbër ñu force keneen noonu waa boo daanoo xool ci ñi daanu premier tirage dangay mën a nax sa bopp dem liggéey waat waa merci beaucoup